mission de jaar jaar la jom ak fit mooy tax doon bi jaar mission bi dóor waar la question de jaar jaar la jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar jaar la jom ak fit mooy tax doon bi jaar jóg fagaru teel takku fagaru teel jóg sama xel fàtt ngërëm laay defaat su ma toll di xel suba laay fexeel sama jeunesse wër naa macha allah bés lay xëy ni loolu yëpp misaal la amee góor yaay war fay baay mun ma leen dab ga. asalaamaaleykum mbokki internet Baol TV Paul bu rafet mu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal te nag ñu ngi fii nga xamante ne mooy Grand Dakar seet si ndaanaan champion muy Boy Dakar seet bi nag dugguleet di ñaan yàlla rek di ko seet si di ko seet si waat mu digmal combat diggante moom ak caatu ngéwél tey nag ma fekk si ko fii nga xamante ne mooy saalu dig dig saax fitness di xool lu muy liggéey ak lan lay waajal ci diggante moom ak caatu ngéwél incha allah ñu xool lan moo ci xew ma ànd see Kader sama caméraman bu ñaawul bi Kader ma bëgg nga topp ma ci biir ñu xool li nga xamante ne moom lay booy Dakar di liggéey ci biir saar bi fii nga xamante ne mooy dig saax fitness ah ñu xool li muy def loolu da ciy am solo. sa yaram daa nice sa yaram daa sama yaram dafa tàng te yow naa sax waaye ñu ne la wala affaire ñoo bëri si bopp bi <laughs> waaw noonu la def waaw incha allah ay ca mbokk internet Baol TV ah maa ngi nii toog ak euh, champion bi ndaanaan ki nga xamante ne mooy Boy dakaar Boy dakaar kenn doot ko présenté ndax marqué na empreinte am wax dëgg neex yàlla ñafe na ba xeex place am mooy ci li nga xamante ne mooy làmb ndaxte Boy dakaar bëri na 11 combats benn victoire gàkku doo daan na loolu du gàcce ci làmb loolu ndam la macha allah ñu gën ko ràññee ci mbappat gën ko ràññee tamit ci li nga xamante ne mooy lutte avec frappe maa ngi koy nuyu di ko ziar mais nag man nee naa leen du ma bàyyi damay ñëw moom ci combat bi passé erreur yi mu fa bëre wala boog lam fa def wala nam fa demee ci diggante moom ak Gàkku de soog a ñëw ak moom ci diggante moom ak ki nga xamante ne mooy caatu ngéwél mu nekk Bawol production tëgg ko muy Assane Ndiaye maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant suma président staff muy ay dara ak Modou Sagna ak ñoom Aba ñoom Ahmed Faye ñoom Alassane Gueye di sant sama coach bu Baye ak euh, sama beneen coach bi maam maam Doudou. waaw di siyaar ñëpp di siyaar waa salle bi yëpp waaw di nuyu sama yaay Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme de la famille et du genre et protection des enfants adjoint maire ville de Dakar maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Ndiogu ambassade France di Ndiogu euh, di nuyu Ndiogu Assad Demba Diop sama papa Djibril Wade waaw di nuyu sama famille bi yëpp ma kenn waa Kër Madiabel Kaolack euh, Kër Omar Kër Omar Pël Koylal Moussa Boy Lat Menge Dagga Koutal Kavil Sangel ji la xaar panne sader laa maram dem ba Casamance nuyu waa euh, tàngoor yi waaw di nuyu yëpp waa Gànket waalo waa waa waa waa Gànket ma leen di siyaar bu baax a baax di wax di leen woo si combat bi waaw. macha allah ma fekk la fi laajte la ndax sa yaram dafa tàng nga ne ma waaw sama yaram dafa tàng ndax gaynde mer la fanaanoo ah ma ñëw fekk la fii ci digg saax fitness ngay liggéey lu doy waar euh, ngay looy waajal. waaw. waajal effacé rectif faute bu ma defoon rek waaw loolu laa bëgg a rectifier wu pour delluwaat si semaine bi quoi benn tànk baa wàcc rek dama ko bëgg a yëgalaat waaw. incha balaa ñoo ñëw si sa diggante ak caatu ngewel damay ñëw ax yow sa diggante ak Gackou 2 ngay ndaanaan di champion Gackou 2 di ndaanaan di champion ma koy félicité encore une di la encourager ndax damay faral di wax naan làmb noonu la ku bëriwul doo daanu bëre nga. ba tey yàlla xañ la moom mu may ko te mun nañ xam sa diggante Gackou Doo yéen erreur nga fa bëre ak lan nga fa def loo xam ne waroo ko woon def waaw dañ ciy sant yàlla rek parce que moom bëre ñetti moo ci am daanu ak daan ak nil waaw mag ak mag si waaw dañuy sant yàlla si luñ ko luñ ko amee nag mais dafa fekk ne heure bu ñu ko waroon jël waruñu ko woon jël parce que d'ici vingt jours lañ jël combat bi ma demoon euh, compétition Casamance ma am si faar bu damm xam nga loolu moo waroon moo waral ba combat bi demee noonu mooy waral sama arrière métti yi su ma su ma doon song rek damay am problème loolu moo waroon combat bi saa yu ma xëtalee euh, xëtalee rek damay arrière loolu moo tax léegi nag ma mujjee ko indi xeex waaw ba combat bi demee nu mu war a demee. bi tane na. waaw léegi moom alhamdulilah léegi moom sant yàlla waaw. bëre moo leen koy jaral wala bés bi mooy toll foofu da ngeen di bañ a yàq journée jaamur. waaw journée jaamur moom bëgguma ko yàq te moment yu ma koy jël maa ngi nekkoon si forme loolu moo ma pénalisé woon xam nga may sooxaale moom di sooxaale moom ba sama staff ne ma ba Dakar nañ arrêté annulé combat man leen noonu léegi nag man dama jënd ay garab di ko naan ma leen di nëb ma leen di gën a bi saa ñu nekkee fi yaakaar ne man dama blessé sax ma leen di reeloo di leen pour ñu fàtte affaire bi pour mun a mun a nekk si làmb ji waaw mais sama staff ñu bëri xamoon nañ ne affaire bi noonu lay demee mais sant yàlla ko mais nag démérité woo ndax jël bi mënoon na gën a ñaaw. Euh, par décision arbitre la. waaw la mais dañ koy sant yàlla rek di félicité Gakou borom baax la combat bi neexal nañ ko maanaam daal waaw signature nañ waaw ba mu saf sàpp waaw bi bi ma dàq nag. nee nañ ndam noo ko amee rek baax na. kon moom ñu ngi koy félicité ah euh, d'accord léegi nga ñëw samp xeex. ngeen xeex ku nekk sa bët néewi nag ngeen jàmmaarloo ñaari waxambaane taxaw ci géew am jóob joxal njaay xeex bi ngeen samp bi nga ñibbisee lan nga doon yëg ci sa yaram. waaw yëguma dara lu dul bët bi xaw a néewi tuuti rek. mais ku nekk ku nekk ëf na sa morom waaw man lu ma ko ëflee moo ëpp lu ma ko ëflee moom benn ëf la ma ëf ma dama ëf kanam bi yëpp. <laughs> waaw mais jàmbaar la nag jàmbaar la waaw jàmbaar la mais sant yàlla rek. waaw vraiment xeex nañ contrat bi daal mat na. ñëpp bëgg nañ waaw remplir nañ ko waaw ñëpp kontaan nañ wax fa dëgg yàlla waaw. xeex sa morom ba ko def ci yow est-ce parce que man du ma du du ma la nëbb nag pour ma dóor nit sax problème problème la woon si man mais man su ma xawee laal rek sama yaram day tàng si saa si mun naa def lu may def après su ma paree mun naa kaa regretter quoi waaw parce que man ñun du ñu ay assassin waaw ñun waaw mais si làmb la bokk xam nga sport bi moo ko laaj rek su jeexee jeex na waaw. léegi dañuy tëj foofu ñu ñëw nag ci cappaandaw gi nga xamante ne yaak euh, caatu ngewel la bawol euh, yëngalaat làmb dekkalaat làmb caatu ngewel di xale bu doy waar ngay xale bu doy waar ñaari xale yi doy waar nar a daje instant bi boo amee la wax caatu ngewel loo koy wax Assane Ndiaye dafa yëngal lu garaaw billaahi doy waar doy <laughs> billaahi wallaahi <laughs> dafa yëngal lu garaaw billaahi ñu ne yoof ak ñaar tali ñoo war a daje allahu akbar loolu njar ndéem la. billaahi loolu xam nga lu pël naan ma suusaa bone laamatoo ko noonu la demee nag mhm. ku ñeme lu xotteeku doo mus a falu te man damaa ñeme lu xotteeku waaw sooba yàlla ak yonent bi bis bi dana neex dina yëngu. jour boobu dina mel ni kañ ko dëgg tiga de. billaay wallaay dina mel ni kañ bu dëgg tiga de. fu mu jaar fu mu jaar mu takk ñu ne kan moo fi jaar ñu ne Jal Diop Sangomar. Dakar ak booy Yoff. waaw caatu Yoff caatoo caat laa ko waaw taaw baa ngi nii. waaw taaw xam nga mooy diriger. waaw taaw ci biir kër gi ne nekk di diriger ku nekk mu placé la rek. waaw waaw noonu la demee. tey mu nekk kat nga nekk bërekat. ngay ndaanaan moom muy ndaanaan. mais ku ne xam na ne caat day bëre ci action biir action yow it ngay bëre action biir action mais caat da lay fekk si sa biir action est-ce que yaa ngi bàyyi loolu xel bu baax si sa adversaire. sama adversaire ci biir xelam laa jour boobu lay xam lay comprendre ni si biir xelam laa ne. appartement nga am biir xelam. noonu la demee nag est-ce que raw na appartement R plus 5 laa fa am waaw laa fa am ci biir xelam waaw. kon moom bi amul ci chance. non non amul ci day xaar damay jàll sama benn tànk bi laa bëgg a yéegal rek xam nga yéeg yéegal ko xaw na yomb. waaw dafa am barastiku rek ma bëgg ko yéegal waaw. bëgg naa xam wala boog sénégalais bëgg nañu xam lan moo tax nga jël caatu ngéwél. waaw caatu ngéwél maanaam. soo gisee ma jël ko sama adversaire yi ñu ma doon jox yu ma waroon bëreel bëriwuma bëriwuma ak ñoom maanaam dañ ma doon daw léegi nag loolu moo tax Assane Ndiaye proposé ma ko ma ne ko garaawul comme que samay adversaire ñu ngi daw di delloo avance ma jël ko. ñan ñoo doon delloo waaw bëri na du ma nekk fi di leen lim instant am na ñoo xam ne am nañ combat ba daanu am na ñoo xamante ne am nañ combat encore waaw mais du ma leen lim instant bi nii parce que aw ma seen jot waaw. caatu ngéwél waaw. effacer rectifier lii bi rek faute bi rek loolu la rek waaw faute bi rek laa bëgg a effacer. mais am nga yaqin ne mun nga daan ki nga xamante ne mooy caatu ngéwél. si combat bu gaaw incha allahu rabbi waaw soobee yàlla yonent bi. xalaatee que mun nga ko daan moom tamit mu ngi xalaat ne mun na la daan tey nga daan ko wala mu daan la lan lay def ci yow. waaw ñu xam ne làmb rek la parce que tamit ñun suñu bëgg-bëgg ak suñu mbébét rek la ñuy am ak suñu gëm-gëm ñun loolu la ñuy loolu la ñuy exploité rek. gars yi di ko dégg ñu ñu siy ñaanal suñu am di jàmm loolu la rek waaw mais gëm-gëm bi mu ngi si ñun capacité bi mu ngi si ñun waaw ak tamit farlu bi tamit mu ngi si ñun waaw. bu mel ni yaa ngi koy pare lu doy waar. ci wàllu bëre ci wàllu xeex ci wàllu ambiance. gis nga nee géwél la man géwélu Ndakaaru yëpp laay woo ñu ñëw. day alaa daw daw dinaa dem dinaa dem la jor la jor fu mu dëkkati sax nu mu tuddati. Euh, euh, Bawol dem dem dem jëli griot yu nekk foofu yëpp indi leen moo xam ne man waaw mu xam mu xam ne man maa aaye waaw géwél yi man la ñuy àndal parce que dama leen di teral waaw te dama koy daan ba pare. da ci ci ba pare teral ay teral ko dama koy daan pare teral ko waaw di ko baatere su bëggee sax mu baatere ko ay euro wala ay dollar. booy Dakar waaw ñi nga àndal na. baatere booy <laughs> ay li le 16. billaay walaay retour de Boy Dakar. noonu la demee nag. retour de Boy ñëw indi tey indi dal wala nga ne retour de Boy Dakar nan lay waaw. j'attaque. je cogne et je gagne suma grand lagros nu mu koy waxee rek. waaw j'attaque je cogne et gagne. waaw anam bu doy waar rek. boo xamante ne lamb dañ koy soxla lamb day day dundalaat làmb parce que ñun jeunesse yi ñoo mën a defar lamb kon il faut il ñu farlu si ñu bañ ñu bëri waaw di nangu di nangu lamb waaw di nangu làmb lu mu laaj waaw ñu koy def di si xar suñu tànk tubéy parce que ñun dañoo bàyyi jàng bàyyi lépp des fois sax suñu liggéey dañ koy tegee boor ndax làmb waaw bàyyi ñu liggéey nag mais dañ koy tegee boor ndax làmb. làmb daa fiir. waaw dafa fiir il faut nga concentré aussi xam nga mun see prouver waaw. Mhm. soo gisee tubaab du ñuy raw lu bëri dañuy concentré si benn affaire viser ko si viser ko ñaan lii dama si am lii nii waaw fu ñu jaar dañ koy am waaw. instant bi lan la làmb mën a xaar ci booy dakaar wala boog ay supporters Boy Dakar lan lañ mën a xaar ci yow. il est temps booy Dakar gën a génn gën a fël nag ñu day dégg fu ñuy dégg ndaanaa ne ndax onze combats ay caaxaan. Mhm. waaw parce que man ndeysaan dafa am ñoo xamante ne dama bëri ay soppe yoo xamante ne damay romb waroo woon jël diw waroo woon jël diw. billaay walaay adverse. non non caatu ngewel caatu ngewel bu mujj bi gàkku sax nu mu demee la woon. waroo ko woon jël dañ dañ koo ragal du question moytu parce que seen bëgg-bëgg ak seen gëm-gëm maanaam waroon naa dépasser fii parce que dix combats dix victoire loolu noonu bëriwul sama moroom yoo xam ne def nañ ko ku ko def kenn rek moo ko si def su ma juumul te si neuf la yem muy sama idole Balla Gaye maa ngi koy bigg bu baax a baax waaw. kooku rek moo ko def fii nii si lu sama gis-gis waaw kon xam nga waroon naa dépassé fii si làmb wax fa dëgg yàlla mais sant yàlla rek yàlla moom yoon bu mu teg rek nañ ko nangu ñu ñu dox si ndànk-ndànk ba kere bu ñuy egg waaw. caatu ngewel day danse day ambiance day neexal làmb jour ba lan lay am ci làmb ji moom. déggoo ma de damay bàkku ba pare ñëw ànd ak moom bàkku ñu deq déggoo ma de xanaa xanaa mu ñàkk xanaa mu ñàkk a ñeme mais damay bàkku ba pare ñëw taxaw si ma xam ne da ma woon ne ko dàquma fecc. la moo tax booy bàkku doo ko woo. na dem ànd. du ñëwee su may bàkku nga ñëw nga bàkku sooy bàkku ma ñëw sa lii nii bàkku. ñu bokk tuus ñu ñaar ñëpp. non non loolu amul dagg parce que duñu xeex duñu xulo dañuy bàkku ñu paree ku nekk demaat ci mbugaayam affaire bi gën a neex waaw. ñu gis na nag temps yi coowu làmb bëri na ci diggante supporters yi mbër yi euh, ci diggante supporters yi siège yi ñuy yàq soo déggee mën na ci diggante supporters yi ak mbër yi mooy tey say supporters bu ñu yàqee ay siège lépp yow lañ koy delloo te tamit supporters yi boo amee loo leen di wax ci wàllu boobu lan nga leen di wax ñu arrêté. waaw man moom damay sant yàlla si côté boobu noonu parce que aw ma supporter yàqkat waaw. parce que soo seetloo ñu koy def boo yoo xamante ne dañu indiscipliné boo yoo xamante ne xamuñu làmb xamuñu loo xamante ne xamuñu loo xamante ne règlement bi lii la wax te man balaa may dem esat open press damay déclarer lii ak lii ak lii bugguma ko lii ak lii ak lii xam nga expliquer làmb lu muy demee ku nekk mun ko dugal si boppam yóbbaale ko esat waaw yaakaar naa nit foo war a toog di seetaan sa mbër waroo ko yàq da nga ko war a respecté ko maa ngi sant yàlla si côté boobu noonu am ma supporter yoo xam sant yàlla rek. mais tamit bu yàqoo que war nañ jël yëpp delloo ko mbër bi. delloo mbër bi loolu moom dafa métti trop waruñu ko delloo mbër bi waaw parce que mbër bi su soñoon kenn du yàq te suy suñuy yàq moom du ko yëg amaana mun na gis nii ni mais benn inconnu mun na ñëw bokk si supporter yi yàq ba pare ñu ne supporter am la après ñu jël teg ko toor bi loolu dafa métti vraiment waaw. merci beaucoup euh, tey nga ameel waa Grand Dakar NGB bi bor ah ameel nga leen bor ni ngi leen doon bégalee tey noonu nga leen amelee bor tey bor boobu lan lañ mën a xaar ci ki nga xamante ne mooy booy Dakar ak ay supporter ak ay soppeem. waaw di woo ñëpp rek pour ñu ñëw préparer ko. waaw ñu dem jëli ndam li bu soobee yàlla damay am ndam incha allah rabbi waaw. bu soobee waaw bu soobee yàlla yonente bi damay am ndam. waaw di woo ñëpp rek pour ñu ñëw jàpp ci gën see teg loxo waaw woo ñëpp bàyyiwuma kenn képp koo xamante ne mu ngi big up Boy rek woo naa la si combat bi nga jàpp ci si barki Seydina Mohamed waaw ñaan naa leen ngeen ñëw jàpp ci NGB di ngeen war a ñëw génn ngeen jàppale jeunesse yi surtout maa mbër yoo xamante ne xam nga waaw dañuy soog a door man depuis ma commencé bëre ku dem damay bëre ku demul damay bëri ji man loolu laa gëm loolu laa xam waaw kon donc ñu ñëpp nañ jàppalante te yàlla tax waaw ñu ñëw soutenir seen bër parce que tamit ñu ñooy jël drapeau gox bi di ko yóbbu foo xamante ne si kaw a la daal nañ ñëw jàppale ñu waaw waaw loolu mun naal ñaan ñaan nañ leen ko daal waaw supporters yëpp ñu génn merci Boy Dakar maa lay jaajëfal di la kontaane ma bàyyi la nga tàggatoog suñu mbokk internet yi à travers Baol TV. waaw maa ngi woo waa extérieur nag ku si mel ni ñoom Sa Thiès ñoom Mori ñoom Sang waaw bàyyiwuma kenn ah ku si mel ni ñoom Abdou Italie ñoom Grand élage ñoom Diarra Italie ah, ñoom euh, Bala Sangaré waaw sam papa na maa ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax a baax seex na Sangaré waaw sam bàjjen numu bàyyiwuma kenn waa Kolel Moussa Boy bàyyiwuma leen waa Ndiafat Sangel Kaolack Koyalal Moussa Boye Lat Menge Daga euh, Pané Sader Lamaram euh, euh, Jilaxaar waa Dakar yëpp maa leen di woo bàyyiwuma kenn di woo sama yaay Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme Baye Mam maa ngi koy woo Ndiogu Esat Esat Demba Diop Ndiogu France maa ngi koy woo ambassade France maa ngi koy woo bu baax a baax a baax ci combat bi bàyyiwuma kenn président Djibril Wade maa ngi koy woo maa ngi woo ñëpp daal bàyyiwuma kenn waaw ku lim day jum quoi. signature bi dana neex dina yëngu billaay wallaay le 16 le 16 décembre ku yéex du am place waaw. man maa ëpp mbooloo dama nekk moromam. kon maanaam signature bi rek di lu doy waar. danaa fa indi lu doy waar. convoi bu amul fenn. waaw bu soobee yàlla sa caméra baa ngi fi yaa ngi fi yàlla nañu ko fekk ak jàmm. wax ko ko nee ko caatu ngéwél maa la ëpp mbooloo le 16 décembre maa la ëpp décembre. doo dugg si stade bi sooy dof-doflu waaw da ngay xaar. dañuy ñibbi dañuy ñibbi est ce que danañ ñëw sax duñ ñëw non non. waaw le 16 incha allah ñu daje stade Iba Mar Diop. ala ala cadar waaw si signature ba waaw incha allah waaw di gërëm Baye Gueye bu baax a baax a baax waaw ak mm, sama dug sudu dug sudu waaw maam duudu maa ngi koy bëggee bu baax a baax ndeysaan dañ may woo téléphone boo daga acca jugal ñëwal entrainement di ma di ma motiver billaay wallaay waaw ñu ngi may motiver bu baax a baax a baax waaw ok ayca jërë ngeen jëf mbokki internet Baol TV maa leen di jaajëfalaat di leen kontaane di leen ñaanal jàmm rawatina diaspora bi ndax nee naa leen lu dul jàmm jàmm ko gën yàlla na jàmm yàgg ci réew mi Kader di la ñaanal jàmm di wax ne que yàlla na yàlla wéral say cër di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na jàmm yàgg ci réew mi yàlla na jàmm yàgg fi fépp di nuyu fans pël bu rafet yëpp képp ku ma bëgg rek bëgg naa la ku ma bëggut it man bëgg naa la ah foofu daal di toj di jox dig